asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi nuyu bokki jullit yépp di leen ndokkeel ci weeru màgg ci weeru tedd ci weeru barke ci weeru jëggal ci weeru tawfiq ci weeru gore ci safara di ci ndokkeel jullit ñépp fañ mën di nekk ci kaw suuf di ñaan sunu borom nangul nu sunu koor te fulal nu ko te làqal nu ko it fa yàq yëgut di dellu di ko tuubal moom sunu borom bi subhanahu wa taala ci mbooleem sunuy rëcc-rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf te di ko ñaan mu nangul nu mbooleem sunuy yiw yi nuy jéemantu ci pas-pas ci kàddu ci jëf di ñaan yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala kenn ku nekk ci nun mbooleem lu mu ñaan ci weer wi saa borom defal ko ci lu kawe njortam lépp lu mu ci doon muslu it saa borom dox digganteem ak loolee lépp lu mu ci doon yóotu it saa borom dajale ko ak loola di dellu di ndokkeel jullit ñépp di ko njëkk ci kilifay diine yi di ci jiital cheikh muhammadul muntaka ibnu seydil basir sunu borom yokk aw fanam te yokk ak wéram te mbooleem yéeneem ak naalam na mu ko yéenee ëmb ko ci xolam fas ko ci yéene jëf saa borom tëbb ko kàttan ak tawfiq mu jëf ci lu kaw njortam te nu ànd ko ak moom di ndokkeel mbooleem kilifay diine ci réew mi yépp foofu kilifa diina nekk di xëy di dox ci luy jëmale kanam diine di ca wax di ca jëf yàlla na ko ca yàlla defal ndam te defal ko ca barke te defal ko ca tawfiq te defal ko ci sutura di dellu di dénk sa bopp tey dénk mbokki jullit yépp nu gën a góorgóorlu gën a farlu ci ndigali sunu borom bi subhanahu wa taala kenn ku nekk ci nun gën a bàyyi xel digganteem ak boromam gën a bàyyi xelit digganteem ak moroomam nuy góorgóorlu bu baax ci noppi ci lépp loo xamante ni amul njariñ ndax sunu borom bi subhanahu wa taala kat def noo digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fedd li ndigal loolee muy noppi ci lépp lu nu amalul njariñ di ñaan sunu borom bi mu dimbali nu ci ci xew-xew bi xew te ñépp xam ko mu di am nattu ci jullit ñi xëy na mën naa doon mbugal ci keneen waaye ab jullit moom lépp lu ko dal na xam ne sunu borom mooy nattu pas-pasam ba xam fan la ak ngëm yàlla am toll ndax ku delloo léppam boroomam la ni nga xamante ni boroomam moo moom léppam ndax delloo na ko ko ndax ki moom kat lim moom sañ na caa wax sañ na caa jëf sañ na caa sàkk lépp lu ko soob kon bu ab nattu dikkee tege ci kaw jullit ni loola kenn ku ci nekk war na caa nattu pas-pasam digganteem ak boroomam te njàmbat yi ñu wàññi ko te jiital cant gi ndax koo fekk koy jàmbat rek mi ngi ci xéewal bu ko yëgee ak su ko yëgut ndax am na ko nekk ca suufam koo xamante ne tëlut jàmbat yooyee maa nga ne woon siiwa jot ca moom la muy jàmbat ba tax na ñun ñëpp nu jàppe ko am nattu tey ñaan sunu borom mi teggi ko waaye nag nu jàngate ci lu bari ni nga xamante ni noonu lay noonu la ñuy jàngate ci weeru koor muñ ci lu dagan ci lekk ci naan ak ci ànd ak sa njaboot loolee war na si naa jànge ci feebar bii tamit njàngat mu xóotu xóotu xóotu xóot ci suñu digganteeg suñu borom ak li nga xamante ni moom jàngoro ji nga xamante ni ab jaam la kem nun li nga xamante ni lépp tere nañu ko ñu wattandiku ko ngir bëgg a mucc ci dund guy jeex takk te suñu borom lim nu tere ñu war koo bàyyi ngir war a mucc ci dund gudul jeex mukk loolee war nañ cee am bind boo xamante ni war na ko cee jàngat moo xamante bu nu war a jariñ ñun ñëpp lay doon ndax kenn ku ci nekk yaa ngi takk sa masque te boo xoolee kat suñ borom wutaloon nañu masque muy am tuñ wut ay bëñ bala ngaa jot ca làmmiñ nga xam ne làmmiñ balaa mën a génn faw dana jaar ci bëñ jaar ci tuñ door a mën a génn noonu yi nga xamante ni jaam bi mi ngi masque ngir dañ lay wax ni la kat boo ko tëkkut li ngay wax mën naa génn su génnee képp ku mu laal bu dee suñ borom dogalee koo ko amee feebar ba yow mën nga ko ko wàll te boo takkee masque bi dana yem ci biir loolee war naa tax jullit bi xam ni kàddu lu mën a gaañ nit la lu mën a yàq ab dëkk la lu mën a yàq am réew la lu mën a yàq ak kër la lu mën a yàq ak bokk la lu mën a yàq ay xarit la lu mën a yàq pénc mi la bu dee kàddu gu safaanoo kàddu njub la muy lu demee ni ki rambaaj wax lu du dëgg ak a jëw ak jëf bëgg ñu di ko tudd noonu yi nga xamante ni kat noonu nañ la waxee ni lii soo ko defut lii mën na cee juddoo ba lor keneen kàddu gi moo raw fopp ndax feebar bi ñu ma ko waxee barki démb day jàll balay yàgg ñu fa ñu say am ay partiliku rek kon nag kàddu gi nga xamante ni tey soo ko yëkkatee wax ko nit kàddu gi jib na mën naa àgg ci nit ki gaañ ko foo xam ni giir dundam du ko fàtte mukk mën nga cee gaañ aw xeet mën nga cee gaañ jëmm mën nga cee gaañ ab dëkk te doo ko bàyyi xel mën nga cee taal sax am réew mën nga cee yàq bokk góor mën na cee defarati mukk mën nga cee yàq diggante soppe yoo xam ne duutoo ko mën a tee defarati mukk loolee nag war naa tax kenn ku ci nekk ci nun ni ngay defee masque ngir ne feebar bi du ma ko wàlle waaye kenn du ma ko wàll ngir lan bëgg mucc ci tey te tey jii am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem kàddu gi nga xamante ni nag soo ko waxee bu dee kàddu gu du dëgg la sa digganteeg sa borom kàddu gi day dem ba fa sunu borom ca xaras ne man kat man la diw wax doomi diw te li mu wax dara du ci dëgg war nañ cee jàngiwaat bu baax ak kàddu tey wattandiku wax nit ñi nañuy wattandiku wax tey noppi wax soo ko mënta ñàkk bañ a def waxal aw yiw ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee wala nga noppi ndax wax dana yàq loo xamante ni kat dab dabaatal ko léeg-léeg lu jafe jafe jafe jafe jafe jafe lay doon mooy tax nag nit ki ñun suñ borom defale ay gém gémmiñ waaye nga gis làmmiñ wi war a wax li ko tënk lépp balay mën a génn loolu lépp ngir nit ki mën a téye ay waxam rek la képp ku ci merati noppil moo xam sa digganteeg sa wayjur la donte yellut moo xam sa digganteeg sa kilifa gu mën di doon ne donte yellu ca moo xam sa digganteeg sa soxna la moo xam sa digg ak sa boroom kër la moo xam sa digg ak sa doom la moo xam sa digg ak sa dëkkandoo la moo xam ki ci marché bi la moo xam ki ci bureau ba la moo xam koo mën di nekkal ci kaw suuf heure boo meree bu dee ci kër gi nga nekk demal nga jàpp ba sell julli ñaar ràkk soo ko mënee bu dee jullit nga boo dut ab jullit sax soo meree nuppil maa nga dem naanum ndox bu la fekkee taxaw toogal bu la fekkee toog tëddal bu dee yaa ngi ci biir kër gi wax jib moo xam sa digg ak sa soxna la génnal bàyyi ko fa dem ba ak dal am nga dikk waxit diisu ci tontu wax bu jibee nuppil ndax bu kenn waxee lu dul noona kenn jóg tontu ko kee day tontuwaat kee tontuwaat wax ja mën naa dem ba àgg foo xamante ni ci wax la waroon waaye ci jàppante ca lay mujj doon loolu war naa tax ñun ñëpp ñu góorgóorluwaat takkuwaat bu baax bokki taalibe yi maa ngi leen di dénk ak bokki jullit yi ak bokk yi nangu sunu laabire nañuy noppi ci lu amul njariñ nañuy wattandikuy tontante nañuy muñ te yàlla tax rawatina képp koo xam ni sunu borom dogal na nga namm dox jëm ci yàlla di am murit li la war mooy muñ ndax murit kat nañu xam ne ngërëmal yàlla yombut dox jëm ci yàlla yombut àgg ci yàlla yombut benn bunt nag tëjëwu ci xofati jannati bil makaari wa xofati naar bi dahabaat aljana ay naqara ko pekk yoon wi nga aw nag ñu ne la yoon wii kat laata ngay jóg namm caa soogu nee nañ la ay naqar ko peek kon séentul naqar moo xam luñ lay wax la moo xam looy dajal la moo xam luñ lay jëf la moo xam luñ lay def la yow waajaloon nañ la ca démb ne la yoon wi nga aw neexut te ku ci aw da nga dajee ki nattu ba tax na kon na ngay muñ képp ku sóobu ci yoon yàlla fas yéene dox te wéy wala gestu mukk sa gannaaw ndax ki nga xamante ni kat toog la def moom te amul yéenay dem mukk te du dem mukk kookee booy def saa su jëlee dara sànni la wala moom moo xam baat bu mu la wax la bu doon misaal muy nga muy jëlu xeer di la sànni te fi mu toog moom du fi jóg bul gestu xeer wax waxuma la ak di ko jël di ko ko delloo diir ba ngay gestu yaa ngi dëpp de wala yaa ngi yeexal sab dox ba ngay taxaw moom waxaalewu ma ko ba ngay sëgg di for xeer waxaalewu ma ko di ko ko sànniwaat di ko xool noo koy mën a jëme waxaalewu ma ko bu ca jotaatee moom itam sànniwaat la ko bu yàggee doo dem te moom dudul dem abadan yow nag gannaaw da ngaa war a dem bu ko sa bu sànnee wenn xeer wéyal léegi si tey bu sànnee xeer xeeru duutu la dal léegi si tey duutu la séeréti ba dee sànni aw xeer du xamante sax yow fan nga nekk te sa boobaa yow fa la taxoon a jóg mu yàlla mën nga caa àgg dajeeg yi wudul jeex dajeeg pay gudul jeex dajeeg xéewal yu dul jeex mucc ba faaw kon nag ki jëm ci yàlla bu mu di gestu mukk bu leen di tontante bu leen di fay yonte ni ma koy waxee waxtu wu ne suñuy jëf nañ koy denc nit booy jëf lu baax danga koy sange te yàlla rek a tax nañuy muñ muñ dafa am solo nit wax la lu la naqari nit wax la lu la metti moo xam ku la ko man di wax moo xam mbokk la moo xam xarit la wala rëcc-rëcc bu gaar la na nga muñ ndax muñ dafa am solo nit booy def luñ la wax nga tontu loolu ab jullit du ko def ab jullit dañ koy wax bam bam xam ni moom lañ wax ba teg ko baaraam mu jéggale mu jëllale mu wone gannaaw walaxad amul ruxanin la émi yasub nii wa axifu suma aqulu laa yahni nii romb naa ko xolam tàng romb naa ko ñàkk nangu dogalub sunu borom romb naa ko añaan ba kañaan gi mu di ko feeñal ci xolam mu yëkkati kàddu yu safaanu di ko teg ci sama kaw waaye gëstuwuma ko de wëlbatikuwuma de maa ngay dox di wéy am na ko ni ma sax de diw mi xanaa xamoon yow lay waxal ma ne ko déedéet da ngaa juum de ba mu demee ba mu wóor na ma ni sax man lay wax ma téerewut ma man koo wan gannaaw wéy jéggal ko jëlale te yàlla tax ndax Serigne Touba dafa wax ne kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu ak tooñit du mucc mooy tax ñun ñëpp nañuy góorgóorlu tey farlu ab jullit bu mu bañ ko ko tuumaal ab jullit bu mu bañ ko ko ŋàññi ab jullit bu mu bañ ko ko xas waaye lu mu ca man di doon sa digganteeg sa borom na la doy seede nit ku ne yaa mën a seede sa bopp bu ñëpp maase woon di wax ni yow yaa fi gën tam wóor na ni sa digganteeg sa borom am na dara lu ca des dellul ci sa bopp waaye bul dellu ca la nit ca la nit ñay wax bu ñëpp naan yaa fi yées dellul ci sa bopp waaye la nit ñay njortu ci yow ak a xalaat sa njort sa yaqini bopp ji na ko gën a wér nit ñi lu ñu la tagg tagg tagg tagg tagg tagg tagg tagg woowee du la jariñ dara fa yàlla sunu borom subhanahu wa taala su fekkute ni yaa ngi ci li sunu borom bi subhanahu wa taala gërëm ci yow nit ñi lu ñu la xarab xarab xarab xarab xarab ñëpp maasoon di la xarab xarab yooyee du la lor lu toll ni dee dee we feeg yaa ngi ci li la suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm mooy tax ab jullit du geestu fenn ab jullit du ñàkk fu mu féete waaye ab jullit du parparloo ku ne nag am nga foo féete waaye dafa bokk ci fonk sa kilifa fonk kilifa ñëpp ndax réew mi nu bokk dëkkee ñi fi dëkkee ñëpp ay bokk lañ boo ko seetloo ay bokk yi dëkkandoo lañ muy bokki dareet bokki diine tegu ci da nga gis kër goo xamante ni tey boo ci duggee da nga ca gis koo xam ne ab chrétien la gis sa koo xam ne ab jullit la kon sa mbokk mii di sa mbokkum dareet donte ab chrétien la weg gi ak jox xëb cër daf caa bokk la mu gëm nga fonkal ko ko teg ko ca joxal ko jox ko ca ab cër te yàlla tax geneen bokk gi ci des mi bokk deret ji it da nga gis koo xamante ni ñi mu bokkal ñii ay tiijaan lan ñii ay murit lan ñii ay xaadir lañ fonk sa bopp sa bokk yooyee nag daf caa bokk fonk leen lañu la ñu fonk ñoom ci seen wetu bopp ba ci ki nga xamante ni sax gëmul dara sax lam nekk fonkal ko ko te watandi ko gaañ benn pas-pas loolu ab julliti du ko def te Serigne Touba diglu digalunu loolu lim nu digal day moo di moom dafa jaboote jullit ñëpp bu ngi leen noonoo képp koo xamante ni yéen a ngi dégg ci kàddoom muy wax laa ilaha illa allah loolee nag kenn ku nekk war na di ko bàyyi xel bu baax di wattandiku ak tooñ waaye di jéggale ak tooñ waaye di jëllale ak tooñ ñuy wattandiku xàq yi ci suñu biir maa ngi koy tàmbalee sama bopp ak sama bokki taalibe yëpp nit ki boo am ak mbokki jullit yëpp nañuy wattandiku xàq kilifa goo man di àndal waliw yàlla woo man di àndal ak woo mën a yaakaar ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñoom waliw yàlla yépp ci yonent bi la ñuy tëbboo moo ku ne ci ku nekk ci yow leer nga ne ci yow ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ko donde koo ci man di aju lam la digal bul ëmbal ci sa xol benn jullit lu ñaaw bul wax benn jullit lu ñaaw bul jëflanteeg benn jullit lu ñaaw diggante liggéey yi ñuy séq ci sunu biir ak leblente yi nañ koy bàyyi xel bu baax képp ku ci leb la la jàpp ba nga leb su la bàyyee na nga fay bor ba ab jullit day fay bor nit ki soo koy liggéeyloo saa su ñaqam fendee nga am lu ngeen waxante la nga waxanteek moom na nga ko def waaye liggéeyloo nit ki ba aw ñaqam fendi nga téye la nga ko liggéeyloo loolu ab asgor du ko def ab jullit du ko def nit bu ngeen waxantee la ngeen waxante da ngay sàmmanteeg loola ak loola nu mu mën di tëdde loolu yi maa ngi koy dénk saa ba di ko dénk mbokki taali bi yëpp nañuy waxtaan di koy bor ku munta ñàkk leb borit soo lebee la la jàpp ba nga leb su la bàyyee na nga dem fay ko te yàlla tax nañu dimbalante it suñu biir nit ñi it képp ku leen di dimbali def ko te yàlla tax te loo leen di defal fàtte ko fa nga ko defe bul bëgg ku ko tudd bul bëgg ku ko nettali bul bëgg ku ko waxtaane bu sa bu sa yoon nekk ca lool na la ca yàlla doy seede ni ma ko waxee léegi ndax nit ñi bu fekkente ni defoo ngir yàlla doo leen defal dara ndax tey jii loo mën di jëfal nit ñi ci lu baax ci bisub tey bu subaa nga lott ca jëf ja day mel ni mosul leen a jëfal dara waaw bu la ñuy gërëmee tey it ñee xarab la ëllëg bu ñu la gërëmee tey xarab la ëllëg merum nit kenn mënu cee mucc ngërëmal nit kenn mënu koo jot nañ wut ngërëmal yàlla tey daw merum yàlla waaye nit ñi moom loo leen di defal ci lu baax rek nay loo mën a fàtte bul ko geesu bu mu doon loo xam ne su ëllëgee nga ne moo ne barki démb maa ko fi defaloon lii wala maa ko fi waxaloon lii wala sudutoon ak man lii wala sudutoon ak man laa déedéet lépp looy seet ba di ko def def ko te yàlla rek tax ndax mooy li am njariñ jiital ko ci sa bàmmeel te bañ a geesu luñ la ca man di tegalaat ci lu dul noona bul ko xool ndax joxoo leen yàlla ngay jox kon boo xoolee sunu manqué ak sunu matadi ca yi ñuy jëflantewaat doo defal kenn dara waaye yàlla mi la tax di def yàlla moom moom jógu fi benn jant te loo def ngir moom it suñu borom xam na ko su ko defee ñuy góorgóorlu ba la ñuy jëf ci aw yiw loolee ñu di ko def ci nit ñi ñu def ko te jëmm yàlla rek a tax waxtu wi nit ñi aajo nañ ay ndimbal ci waxtu wu ne waaye waxtu wi def cee raw kenn ku ci nekk lu mu ci man ak lu mën a dimbalee morom ma mu di ko def te jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala rek a tax waaw bañ a dimbali nit ñi ba noppi di ko gis déedéet ndax mënoon ngaa bokk ci ñi dimbali. kon yàlla dafa jaarale ci yow rek waaye yow yow miy joxe defe ne yaay def defoo yàlla dafa jaarale ci yow kon nag santal yàlla mi la sagal jaarale ndimbal loolee ca yow ndax mënoon naa soob yàlla kat ña ngay jot li ndimbal loolee nga bokk ca ña nga xamante ni ñoom bu sooboon yàlla ñoom ñu bokk ca ñam jaarale ndimbal la muy jëm si ci yow te doo bokk ca ñay dimbalee kon loolu it coobare suñu borom la ku ci yàlla dimbali it nga di ko sant bu baax a baax gannaaw loolu it maa ngi ndokkeel bokki taalibe yi ci weeru tedd wii ndax bis bi nga xamante ni ñoo ngi ko ci doon dundal ni suñu borom dogale ñu dundale ko ci ren yaakaar naa ne kenn ku ci nekk lam ci dundal boppam yëgal ko ci boppam doy na sëkk war ñu do ko ci dollil dara ndax ndigal yi bis bii saa su ma see dikk ndax suñu cant moom day cant gu sax dàkk suba ngoon guddi bëccëg loolu dafa sax dàkk léegi moom lu ñu daan dajale ngir gën a yokk xame gi ak gën a fet leen tubaab ndigal yi nga xam ne daf noo war ndax kenn ku ci nekk ba nga tàllalee say loxo maa ngi koy fàttali waxtu wu ne dafa am loo wax loolee nga wax nag da ngay fexe di ko sàmm waxtu wu ne te wuroo caa yolom benn yoon waxtu wu ne sa laxasaay da caa war a gën a dëgër këŋ mooy sëriñ bi kat damaa noonu noonu bañ jaayantee ne sëriñ bi nu gënal sunu alal moo nu gënal sunu jëmm moo nu gënal sunu njaboot loolu fu ñu xëyee dañ ko war di firndeel ci sunu jëf dañ ko war di firndeel ci sunuy wax dañ ko war di firndeel ci sunuy melo di ci natt suñu bopp ba xam loolee ñu wax ña nga ca wala nekkuñu ca wala déet te kenn ku ci nekk loolu mën na koo natt ci boppam loolu it ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax ndax li ma ko waxee léegi waxtu wane ñu ngi ci jàng alxuraan ñu ngi ci jàng xasida ñu ngi ci tudd yàlla dog yi ñu joxe woon yëpp it ñu ngi ci waaye bis bi boo xoolee bi mu bi mu ñëwagut it taxul ma wax benn baat benn mbokki tali bi waaye yëg naa ni nag kenn ku ci nekk xaarut ma soññ ko ci dara ci waxam ci jëfam ci melokaanam. ci yéeneem ba jëf yi matale gi matale ren boo ko xoolee musta àgg foofu ci jëf ju matalee nii nu ko jëfe jëf ji ni mu yaatoo nga xamante ne yàlla dimbali nañu jaarale jaarale na ko ci ñun ñëpp ci suñu loxo mu mën a àgg ci jullit ñu yaatoo yaatoo yaatu ak ci bokk yi yaatoo yaatoo yaatu it nii mu tëddee mosu nee tëddee ba ñu ko dalee def ba tey kenn ku ci nekk dana lay woowe ci gox yi fasante koo ci adduna bépp ci biir réew mi ak ci bitim réew kenn ku ci nekk dalay wax ni la man de li ma yëg ci sama xol ci fees ak mbégte ak bànneex ak cant bi ma daan ñëw ci manaarul huda gii sax daw ma fii ma yegg si ci xol bu fees dell ci aku cant ak musuma caa yegg kon loolee da ngay xam ne loolu mbirum sa borom la waaye du mbirum benn mbindéef kon kenn ku ci nekk lam ci jëf ca jëmm yàlla rek a tax yéene ko jëf ko ci jàng alxuraan jëf ko ci jàng xasida jëf ko ci salaatu ala nabi jëf ko ci tudd yàlla waaye yëkkati aw ñaqam ak fi jamono bi tollu lépp jëf ko ca yàlla na ko sunu borom nangul kenn ku ci nekk la nga ci jëf lépp yàlla gis na ko waaye ñun ñii tamit day ràññee nañ ko te seede nañ ko noo ngi ñaan yàlla nangu jëf yëpp te mottali yéene yëpp nag ndax boobaa bañ tàmbalee jëf ji nga xamante ni ñu ngi koy jéemantu muy lu ne yàlla sagale jaara ko ci sunuy loxo muy jëm ci bindeef yi booba day waxaguñ koor gi tëroogut te loola ci lañu nekk ba nii ñu génn ci biir daara ji di toog si ñëw fii ci jullikaay bi kon yàlla na yàlla bokk nangu nun ñëpp yàlla buñ gis sunuy jëf yàlla buñ gis sunuy jëf yàlla bu nu gis suñuy jëf yàlla bu ñu gis suñuy jëmm suñuy jëmm ak suñuy jëf lépp yàllaa moom yàlla moo nu moom moo nu bind moo nu melal moo nu fi indi moo nu fi jële moo ñuy laajaat ëllëg kon ñun ñëpp nañu maasewaat gën a góorgóorluwaat bu baax gën a takkuwaat bu baax gën a faralwaat bu baax di wattandiku bépp jataay boo xam ne doo fa dollikoo ci diine doo fa dollikoo am xel loolu nag jataay yi léegi dafa yaatu lool ndax ni adduna bi tëddee moo tax wala tujaalis xayra man bihi tusaat diinan wa xaqlan abadan tanal muraad bul toog ak kenn mbaa ngay ànd ak kenn ci lu dul ni kooku dafa lay dolli ci sa wàllu diine nooy yokke sa xam sa diine ak nooy yokk nooy jëfe sa diine ak nooy yokk nooy sellale sa diine ca jëmm yàlla rek a tax wa illaa koo xam ne dana la dolli ci xel mu rafet mooy mën a àndeek doomu aadama yi sa sa jëflantiin mën a rafet nga yor xel mu xel mu leer moo xamante bala ngaa jëf dara da nga xalaat ci sam xel lii may jëf wala lii may wax fan la ma jëmee bu dee lu lay yóbbu ci ngërëmal yàlla la kookee waxtu wu ne dee ko jege bu dee lu lay yóbbu ci merom suñu borom la nga daw loola sa kem kàttan lépp lu lay yóbbu ci ngërëmal suñu borom ngay daw ngay daw jëm ci loola kon képp koy àndal na lay ku lay doon xel na lay ku lay doon diine ak xel mu rafet ci sa nekkiinu adduna sa digg ak sa say wayjur sa digg ak say soxna sa digganteeg sa borom kër sa digganteeg sa njaboot loolu mooy li nga xamante mooy li am njariñ jataay yooyu nit ñooñu nag nga xamante ni wala tujaalis xayraman bihi tusaat ku ku lay dolli ci diine xel boo xoolee réseaux sociaux yii nit ñi ñu ngi ciy def ay groupe di ci def ay waxtaan ci anam yu baree baree bare yooyu yëpp kon mën nga koo tudde ay jataay mën nga koo tuddee ay mbooloo yooyu àndal doon yaa ngi ci sa biir néeg lépp loo ciy jël wala loo ci foo ci bokk wala loo cay def na lay dolli ci ñaar yi bu la dolliwut ñaar yi waroon la lay gannaaw ab jullit dafay am fulla ab jullit dafay am fayda ak jullit day am ak woy xam la lépp loo xamante nii temps dafa seerit looy jeexal say temps na nga ko seet ba muy lu lay amal njariñ ëllëg yomal xiyam am lu lay amal njariñ fii ci adduna loo xam ne dana doon ab yóbbalit ëllëg yomal xiyam waaye nuur ci loo xamante ni jeexal ci sa temps bépp bépp bépp di ca sëgg ko werante woo xamante ni doo ca màndi doo ca regg du la jariñ ci sa roo du la jariñ ci sa diine du la jariñ sax ci sa adduna te ay lori lori lori lor mën na caa tege loolu daal ab julli du ca sànq waxtoom yépp ab julli daal la muy war a sànq waxtoom mooy la nga xamante nii dana ko jariñ ëllëg yomal xiyam ak loo xam ne dana ko jariñ fii ci adduna loo xam ne dana ko doon ab yóbbal ëllëg yomal xiyam kon noo ngi ñaanal jullit ñëpp fépp fu ñu mën a féete ci kaw suuf mbokki taalibe yi mbokki jullit yi noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di baalu xàq ñëpp tey baal xàq ñëpp kàddu yi ñu yëpp yu ñu dégg ñu di ko waxtaane lépp lu ci jub day coobare suñu borom la mbaax suñu borom la yërmandeem la waaye lépp lu ci dëng it mata dig doomu aadama rek la waaye du suñu yéene du suñu bëgg-bëgg lay suñu yéene de ak lay suñu bëgg-bëgg mooy kàddu guy génn ci gémmiñ ji mu nekk lu rafet lekk loo xam ne luy jëriñ bindeef yëpp la nanu bokkuwaat gën a góorgóorlu bu baax xam ni ndigal du ràpp mukk lu baax ña ko doon wut képp ku jóg dox seen tànk ya nañu ko doon wute lay sëb cër suñu borom dana la ko jox amul lenn loo xamante ni suñu borom daana ko defal jaam ñi ko jublu ci gàttandu leen ci tawfiq ci njëggal ci yërmande ci barke ci ngërëmam ci ludul ni bépp jaam boo xamante ni jóg nga jaar ci yoon wooyu jaam yooyu jaam yooyu jaaroon suñ borom dana la gàttandoo nam leen gàttandoo woon mooy tax nañuy góorgóorlu bu baax gën a fetli sunu laxasaay na ci ndigal yi tey te tere yi tey wattandiku tooñ te di ko jéggale tey fàttaliku ëllëg te di ko bàyyi xel xam ne ëllëg luy ñëw la te ci sunu kanam la nekk nuy wattandiku tooñ ndax ay lëndëm lëndëm dong la ñuy jural ci sunu bàmmeel kenn ku ci nekk nay jëf tey wax loo xamante ni ëllëg buñ bu lay taayoo ab ndeyjooram du ca gis lenn lu muy réccu du fa dégg lenn lu muy réccu loolee nag mënut a juddoo ci lenn nag lu may di yéene aw yiw di jëf aw yiw te sax sax yàlla na ci yàlla dimbali musal nu ci ndog musal nu ci pakk musal nu ci musiba balaay te dëru suñu tànk ci saraatal mustaqima te bokk na defal nu mujj gu rafet natt yi suñu borom jeexal ko tàkk te toftal ci ngëneelu yaatu barkeel nawet bi lool feneen fu waaye di yëngu it te do baykat it la nga yëngu yàlla na ci àll defal barke te defal la ci ak jàppandal mboolem ñi nekk bitim réew ñëpp it ñu soxla ay kayit di ko bëgg ko wuta ko sabablu kenn ku ci nekk la ne ci sa xol di sa aajo nga bëgg ko yàlla na ci àll fekk ak lu kawe sa njot ak ñi ñi ñi ñi ne ci biir réew mi suñu borom mi gën a tàppe xol yi nañuy wattandiku kañaan añaan moom munta tee la yàlla la yàlla dogal rek kay am nit bu bu ko yàlla defalee yiw yéene ko ko ba mel ni yow yaa ko am dool leen rek nga cee jëlee ñàkk ko yéen du tey loola suñ borom wéyal ko su ko defee loolee métti lay doon woo xamante ni ci yow dana yàq say jëf dana yàq sa dund walxiyaasu billah yàlla na suñu borom bokk musal yàlla na yàlla fóotal fóotalal nu sunu xel sunu xol sunu ruux bañ mën a jokkoog leeram gu tedd ga waxtu wu nañu di ko dund zaahiran wa baatinan mu goreel nu ci lépp lu dul moom yàlla sunu borom mu doon cërub yàlla sunu borom ba faw subhanahu wa taala ci mbaaxam cër maa dem ci tawfeexam yàlla na nu yàlla bokk defal mujj gu rafet yàlla na nu yàlla bokk defal mujj gu rafet yàlla na nu yàlla defal mujj gu rafet asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh